yépp sénégalais yu bari ñoo ngi naan papa jibril fall gisuñu ko dégguñu ko waye ñi ñu xam yépp xam nañ ne su ciow li bare kenn duñu ci dégg kenn duñu ci gis buy taw tamit ni ñi koy waxé kenn du fobéré lool mo taxone ñu néwon tek di xaar waxtu wi jot ngir ñu waxtaan ak waa Sénégal yi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew leneen li it waral tekk tekkaaral bi mooy kenn dañoo yóbbaalewul ci dara duñu ko nangu ni ñu waxe woon ne doonuñu bu ma sàmba doonuñu bu ma demba bu askanu Sénégal lañu doon dañoo jóg bàyyi li ñu nekkoon ànd ak sénégalais yi ak sénégalais yi nga xamante ni li ñuy dox ñor na leen ngir ñu soppi doxalin bi nga xamante ni moom moo am ci réewum senegal loolu moo tax bëgguñu ko ñuy yóbbaale ci loo xamante ni xamuñu lu ñu doon xamuñu kan moo ko yëkkati xamuñu kan moo ko yëngal xamuñu fu mu jëm loolu moo tax ñu ne woon tekk ba tey jii ci bés bii nga xamante ni bés bu am solo la di bésu 25 février 2024 ñu waxante woon ci ak sénégalais yi ngir lii ñu jëloon dénk ko Sénégal li jëloon dénk ko président Macky Sall bés bi nekkoon bés bi nga xamante ni ci lañ leen ko waroon a delloo ngir li ñu sénégalais yi waxoon ne bés bi ci lañ ko waroon a jël delloo waat ko ñi euh, kandu delloo ko askan wi askan bi daan nag ki nga xamante ni moom la bëgg mu jiite ko juróomi at yi nekk suñu kanam loolu lañ président Macky Sall xañ Sénégal waaye it loolu la politiciens yi yàgg jëflante ak réew mi moo tax ma jàpp ne senegal benn jàmbaar la am mooy peuple sénégalais mooy jàmbaar peuple sénégalais peuple sénégalais mooy muñkat peuple sénégalais mooy jàmbaar joo xamante ni gaañ nañ ko façon gaañ bu nekk xañ nañ ko lu nekk xañ nañ ko jàmm biir xam nañ xañ nañ ko jàmm biti xañ nañ ko taw feexam ba ay ndawam amatuñu yaakaar ay magam amatuñu yaakaar ay jigéenam amatuñu yaakaar ay góoram it amatuñu yaakaar ñi nekk ci jàng njàng mu kawe mi amatuñu yaakaar gis ngeen fan yi ngeen gis bataaxal buy wane ne ñoo ngi tijjiwaat université Cheikh Anta waaye université Cheikh ba mu tëjee it ba université Gaston Berger tijjee yëngu-yëngu yi ba mu fa amee dégg la ñu defati étudiants yi rey étudiant deeti te étudiant bu jóg dem ci université pour jàngi dee taxul dee yóbbuwu la fa xam-xam moo la fa yóbbu te loolu du lu bees lu yàgg la ci réew mi kon université jàpp naa ne 2024 bii politiciens yi war nañoo góorgóorlu ba bu ñuy def seeni mbir ñu épargner ci université yi

62 lañu lak ay bureau de vote ci Saint-Louis 62 kon violence bobu lan la lan lay jëriñ à chaque fois bo xamanteni fauteuil bi taxaw na fauteuil bi bu taxawé mom politiciens dañ nan kay leen ñu rayanté kay leen raya ngeen dé pour ma toog ci fauteuil bi dara jaru dara jarul dé aduna ak li ci biram yilif ko jarul kenn di dé ñun lool moy suñu conviction la plus forte et nous la et nous la réaffirmons

amna les journalistes yi sax son nañ ndax gis ngeen kérok liñ def suñu mbokku taskatu xabaar yi te loolu xëy bu fekkone né débat économique bi jël na le dessus définitivement bu élection jàllee mënuñoo nekk ci campagne électorale campagne électorale jamono bu ci nekk c'est pas possible fay am jamono politique am jamono liggéey mais mënuñu sa bu ñu génnee ci ci benn ki politique ñu dugulat ñu ci benen ba nit ñi duñu mëna am jotu def li nga xamante ni moom def def donc vraiment ça suffit largement te loolu euh, ñi nga les politiciens professionnels ak ñi nga xamante ni politique les rentiers de la tension yi nga amul ak xeex politique amul du ñu dund ñoom ñoo bëgg a gàllankoor sunu réew donc te Rogo cette TV, l'information à temps réel.